Merci beaucoup, Madame la Présidente. Honorable député, chers collègues, Monsieur le ministre, Madame le ministre di nuyu sa bi nga le DG de la de la Madame le ministre da nga secteur boo le secteur bu am solo la pétrole Nous Sénégal war a exploiter li nga xamante ne si moom mooy le pétrole ci at yi nga xamante ne si si lañ jëm te ñu gis ne dans le budget du Sénégal bi ñu présenté am na part boo xamante ne si ça repose sur l' exploitation du pétrole ci loolu ñu lay wax rek ne article 25 de la constitution moom moo wax ne les ressources naturelles appartiennent au peuple elles doivent servir d' améliorer les conditions de vie des populations ñu espérer nag bu baax que pétrole bi nga xamante ne la a exploiter dina dina impacter positivement le vécu des Sénégalais ñu bañ li nga syndrome bi nga xam dans la zone de Sabodola parce que fan la ñuy jëlee or bi mais da ngay gis ne souffrance population yi ci zone yooyu dafa doon loo xamante ne si dafa métti te loolu li liy firndeel mooy niñ fay ça n'impacte pas directement le vécu des populations qui vivent dans ces zones benen par rapport à la gestion des ressources naturelles qu'est-ce que vous prévoyez pour nous garantir la transparence dans la gestion du pétrole et en général dans la gestion des ressources naturelles de notre pays par rapport à l'électrification, il y a une en commission qui a wax ay si électrifié wuñ ko dans la commune de Wakanguna ñu mën a cee wax commune de Saboya Koutango Ngomeen Kër Ngor ak Touba Fass bi ñu ko waxee ci commission je pense bien que le DG tey jii nii ci réponse yi nga xamante ne si moom la ñu fournir wax na ne ça sera pris en compte ci programme bi nga xamante ne si mooy seen phase 2 bi nga xam ne moom la ñu war a def kon commune yooyu ñu jàpp ne seen zone yi dinañ ko mën a électrifier ba léegi ci zone non électrifiée yi boo demee commune bu mel ne Kër Socé dafa am village yoo xamante ne si ay village la yoo xam ne électrifié wuñ leen ñu mën ci wax village de Koutien Deban ak yenn communes yoo xam yenn village yoo xam ne dañu nekk ci commune u mu doon ay village yoo xamante ne si électrifié wuñ ko population yi di ñaan ñu élec ñëw jàppale leen ci parce que seeni ay doom dañuy dem di jàngi te bu guddi jotee du ñu am exactement li nga xam ne moom moo leen mën a permettre seen doom yi jàng seen leçon dañuy mujj di taal ay sondeel wala ñuy wut ay lampe tempête di ko def pour xale yi mën a jàng te comme dañu leen a woote ne équité territoriale moom ngeen di doxal je pense bien que ces war nañ leen mën a électrifier beneen bi benn honorable député moo ko yónnee neen dafa ñëw wax mais da ko fàtte commune u mu ne boo demee ci village bu ñu naan gent commune bi village yëpp commune ci électrifier nañ leen mais Euh, village u Gent moom mooy seul village boo xamante ne si si commune Lambaye électrifié wuñ ko ñu ne ñu jàppale leen ñu mën ko électrifié fi nga xamante ne si foofu laay jeexalee muy dellu ci facturation yi nga xamante ne si moom moo nekk ci seneleg bi des fois da ngay dañ lay indi facture boo xamante ne si yow da ngay demander est-ce que yaa ko consommé boo bàyyee compteur yi yu yàgg yi nga dem ci euh, comment dirais-je nga dem ci compteur Woyofal yi da ngay gis aussi foofu ba léegi que ni facturation bi dafay gaaw da ngay dugal léegi mu jeex léegi léegi ñu ni laaj foofu sur quelle base yéen si ngeen di defee seen facturation yi nga xamante ne si moom ngeen di jox la population sénégalaise notamment ci facturation bi nga xamante ne si moom mooy am au niveau des